salaamaaleykum ami internaute salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV dal leen ak bu ngeen gisee lii sama ginnaaw ngeen xamante ni ay gaal la waaye napp jiwu ma de dama ànd ak sama mbokk yi ñëw fii nga xamante ni moo di ci ci diwaanu Ndaayaan ma ñëw fi pour ñu war a li nga xamante ni moo di maladie mystérieuse bi nga xamante ni moo nekkoon di lëmbe géej gi war a waxtaane li nga xamante ni aussi tamit moo di activité wu dëkk bi ñu wax ñu naka la dëkk bi di doxee naka la ñuy dundee ci biir dëkk bi sama caméraman nag may topp waaye lépp loo xamante ni info ci kàttanu yàlla dañ leen ko taataanal duma ci benn yoon ñu ànd ak yéen Ndayane situé à cinquante kilomètres de Dakar sama gars yi nañ dem papa ñu gis ni dëkk bi euh, napp la ñuy dundee mais à napp gi est-ce que am na leen activité boo xamante ni euh, mën nañ ko def ci dëkk bi. ah du yomb de ñun daal géej la ñu xam baax na juddoo ba léegi si géej la ñu xam doon nu béy nag waaye béyeetu lan moo tax béyeetu leen. yàqa ba métti si àll bi caama gi yàqa bi moo métti nu bàyyi ko dugg si géej mais est ce que géej gi euh, yan yan problème ngeen di ngeen ngeen ngeen berey na bato yi mool yi si seen biir mool yi seen biir mool yi rek Sénégal seen biir wirgo yu moo baax wirgo yu baaxul ku si nekk la nga yëngatu da nga yaakaar na loolu rek moo baax keneen keneen beneen wirgo bu muy yëngatu boobu baaxul man bi ma yor moo baax loolu rek moo tardel napp ak Sénégal mool seen biir. yow yow mbaalu diigal nga yor man say na laa yor kii fii laa tourné la yor kii nappa caas la yor kenn bëggat gi gis sa morom ku ne da nga yaakaar ne li nga yor rek moo baax te loolu doxalul àddina mag ñi dundewu fi woon loolu ñi bi fi mag ñi nekkee kenn xàmmeewul woon kenn ku nekk doon na jot sa wërsëg te kenn soonul mais léegi àddina moo yàqu appalante dafa yàq àddina ñaaka considéré dafa yàq addina parce que nappa bu ñu demee ba ku nekk li nga yor rek nga yaakaar na moo baax yaa ngi yaaxa nappa gi ba pare gouvernement bi yërëmuñu chinois yi ña ngi mel ni tulee ma si dëkk bi ba tey eh, waa gay pees ña ngi noo bugg a rey waaw loom bu boo mool yi te dundewu ña mool dundalu mool ki li yaax li yaax géej gi dafa béré def yëpp mën nañu si débattre euh, tey fi nga nga am wax point bu am solo maanaam licence de pêche yi euh, tey yéen yan yan difficulté ngeen ci am parce que euh, koo xamante ni ci géej gi la yaakaar xëy suba teel pour dem nappi fekk fa daje fa ay boto coono boobu ngeen bi ngeen di dund waaw mooy li ma la wax rek bu fekkee ne man dama yor fukki gaali locc licence benn licence di ma ma laaj ko gouvernement bu mu ne ma baare na licence mu mën a jëli ay bateau étranger di leen jox licence kon mu mu may néewal doole man mi amul doole te dama ne la gi fii boo fi compter jun téeméeri gaal wala ñit juróomi téeméeri gaal boo compter téeméeri gaal ñoo fi am licence ñi si des ñeme ñu ñëw ut gaal te gaal gi la yaakaar léegi euh, chinois bi jóge fële bitim réew. gouvernement bi jox ko licence kon gouvernement bi reyul napp gi loolu moo ñu sonal man bu weer dee at mi yëpp damay fay weer wu jee quinze mille francs at mi yëpp quinze mille francs laay fay waaw waaw moom man mi dëkk si Sénégal kii dëkk bitim réew ëpp ma fi priorité est-ce que dina dem loolu moo ñu sonal si tefes est-ce que yéen wax ngeen ko fi ngeen ko war a waxee wax nañu guddi wax nañu bëccëg wax nañu suba wax nañu ngoon grève bii moo la doon def sax loolu moo ko waral waaw ministère bu fi ñëw rek da day teg paaka suñu put te kon loolu gën fo ñu jëm moo tax barsaxa naka la barsa gi de dégg ak barsaxa loolu moo ko parce que moo mi bu waree dem géej ba demee géej fi mu war a liggéeyee ba tey fa toog fan lay jëlee fu muy fu muy jëlee xaalis fu muy jëlee lu mu duggee ak njabootam lu muy gis bitim réew rek lay gis. ñu war a waxtaan li nga xamante ni moo di feebar bi nga xamante ni amoon na ci géej gi ñu tase seeg ñaari nit ñoo xamante ni moom la dal ñu war a waxtaan ak ñoom naka la feebar bi di manifesté woo ak bi mu leen dalee ban njàqare lañ amoon kilifa gi maa lay siyaar waaw ah, sëñ bi ñu ngi lay fay bu baax la jox sa wàccuwaay feebar bi moom laaloon nañu quoi waaw mais instant bi daa mel ni mu ngi dañ quoi waaw parce que feebar bi ay yaram buy xasan lay jox ak waaw doo xam loo am moo koy lan moo la koy def daal ak picc sa yaram bi yëpp ay picc la def loolu daal moo ñu daloon amoon nañ si njaakare lool nag waaw parce que géej moom xam nga ay doomu aadama ñoo fi suturoo quoi waaw ñun ñëpp si ki géej gi lañ yaakaar waaw parce que ñun géej lañ xam xamuñu leen lu dul géej waaw kon bu ñuy commencé dem géej ay feebar ñuy dal foofu xam nga kon tuñ nu mu demee noonu quoi waaw da jàppale mool yi parce que mool dafa sonn tey boo lekkee ceeb bu jën bu neex mool mool mool mool mee tax waaw kon war nañoo mën a jàppale mool yi ci benn côté euh, feebar bi ni mu leen nan lay manifesté woo ay yaram buy xasan ay yaram buy xasan génne ay picc waaw picc bu toj fu mu toj feneen day ñëw rek waaw noonu la lay def quoi feebar bi du wàlle feebar non non comme du wàll nit ñi wàllawul de feebar daal yow mi yow mi yor nii boo toogee deux jours trois jours sax nga commencé faju nii day commencé wowul sa yaram nii. Euh, lu ñuy nettali rek sant sant yàlla la quoi ndaxte mënoon nañu dal duñ ko mën a nettali mu doon lu grave métti woon na nag trop métti woon na métti na trop waaw te aussi feebar bi bi mu ñëwee man si ñi ko ñi mu njëkk a su sunu gaal si la bokk muy projet bi ñu yor canot bi ndaxte dama gis projet bi commencé lakk. ma ne gars yi lii ndox mi nii ndox bu bon la parce que mi ngi lakk projet bi quoi ma ne ma jënd orgevel jënd madaar parce que set moom wax dëgg yàlla dafa nekk si ñun quoi ba dañu koy tooñee ma raxas projet ba mu set comprendre nga ndox bi bi ma koy tuur dafa ñuul kuk te loolu xamuñu ko woon ci géej waaw yàgg nañ liggéey nag ci liggéey bi produit produit bi ñuy liggéey nii muy jën bi mais musul am lii waaw musul am lii. mais est-ce que li ñuy wax ni daa xam lu ñu ci géej gi dëgg la wala du dëgg. bien sûr dëgg la ñun tollatuñu fu ñu caaxaan ndax. bu ñu jëlee géej gi ñu jox ko koo xam ne xamu ko xelam du ci bari lu mu ciy wax intérim lay waxee mais boo ñëwee si ñun fii nii dëkku tefes bi dañ lay wax réalité bi li ci nekk ndax ñun yàlla daf ñu may seetlu ndax ñun mool dañu am xel seen suñu xel dafa màcc si asamaan si si ndox mi màcc si produit bi lu ci nekk dañ la koy wax ba temps bu waree ñëw sax dañ la koy wax produit bi bu mu ñëwee gars yi ne jën bi la ñu ne leen du jën bi li tax du jën bi ñun dañuy teer yóbbu suñu kër yi ndaawal suñu yaay di ci lekk sunu rakk yi ak sunu rakk yu góor yi demul géej di ci lekk du du leen def dara mais ñun ñu siy dem géej ndox mi laalo boo ko laalee daf mel ni achib day togg gisoo regard day togg gis nga moo nekk nii moo ma pendant un mois et quelques dew ma géej gis nga waaw ñenn ñi mu def leen ay bouton picc buy dal nit ci géej picc bu ndaw lay doon bu génnee day def dëtt boo ko boo ko bëtee day arrêté mais bi bouton bu ngand lay def mu dëgër nag muy infecté fët fët nga gis gaa yi seen yaram yi duñ mun def dara am na ñoo xam fii dañ leen doon sang dañ leen doon sang te loolu rafetul. gis nga feebar bi wàcc si géej gi nii bare na ñuy yëngatu si géej te xamuñu si dara yàgg na fi jaar nag tabsik bii yàgg na fi jaar du tey jii booga nun ñi ay tuut tànk lañu waaye nag ni mu ni mu ñëwee si yaramu nit ñi mosul amee noonu waaw dañu ko daan sentir si ndox mi. wala ñu santir que si mbaal yi ñuy seet si suuf. bi daan am ak bii bii moo gën a garaaw. bii moo gën a garaaw bii moo gën a garaaw parce que bii dafa tëmb si kaw léegi bu ma taalalee mbaal mi day takk si mbaal mi waaw dégg na ma sax ay nit ñu ne feebar bi xamal affaire bi man ma la comme wax ni ñu ko waxee waaye li ma la gën a li gën a wóor feebar bi yàgg na fi gouvernement bi yàgg na toor topp si si géej gi muy topp mool muy rey jën yi di def yeneen effet si doomu aadama yi bii nag da si raw. ñu dégg ñu ni produit la boo xamante ni dañ ko def ci ndox mi dañ ko cee def pour euh, pour pour nasaxal napp gi wala dañ ko cee def pour xañ mool yi li nga xamante ni moom la war a napp gi defuñu ko yi produit bu ñu tuur si géej la ñu waroon ko tuur si àll bi tuuruñu ko si àll parce que bu ñu ko tuuree si àll du fa mu yàq àll ñu tuur ko si géej léegi mool bi finaan si géej nag wala muy muy mbaalam di dem muy tag si mbaal mi ni muy xëcc mbaal mi nii feebar mooy tiis si loxo bi nii moo waral feebar mais feebar bi yaaxul jën lekkul jën da yaaxul daray jën mais nag nun nun mooli li nu si miti am na benn télé ba xam ne du ma tudd turam nag waaye ni mu interpellé mbir mi ñaaw na trop te kooku mu ngi yor téléem employé ay nitam di leen fay ñuy wax loo xam ne teguñu ko fen te mool mi mu dama ne la mu ngi employé ay nitam la dem géej la dundal téeméeri nit wala dundal ñaar téeméeri nit ba pare kenn nit ab entreprise am di ko yaaxal xibaar ba jógee ni mu amee ak a waxee ni mu amee waaye baa na feebar bii dal Sénégal comme corona bi tey una mu ngi rey junniy nit te mu ngi rey téeméeri nit te gaañul kenn reyul kenn waalul kenn man mi wax ak yow nii sama doom day dem géej feebar bi jàpp na jàpp kaneen jàpp kaneen mais nag waalul ken terewul nun dundee jën mais baa na feebar bi mu ngi si biir jën yi xam nga rey nga moo lii doon dem géej ñaata journaliste yow ñaata nit la ñu rey ñaata nit la rey tey kenn ñi ma ñu tul lekk jën ña wax ja bon ji ñaa wax si nit ñi te teguñu ko fenn ñii kaa wax ñëpp kenn demul si tefes. Euh, Ndayane ak hôpital Ndayane nga école est-ce que tey am ngeen hôpital boo xamante ni tey jii bu fi nit bu nit feebaree au lieu que ñu koy dem di ko yóbbu feneen dina mën a rester ci dëkk bi faju waaw li ñu fi amas néew suñu pakos gi ñu am nii yàlla dimbali nañu ba ka fi ñëw mën nañu laa faj ba noonu mënul faj hôpital bu mag baa ngi Popenguine fa lañ lay yóbbu bu ñu la mën a yóbbu ñu yóbbu la Mbour wala ñu yóbbu la Thiès waaye fii si dëkk bi am nañu pakos nga xam ne la montel kii nii rek nii rek mu tiim la nii waaw ba fekkee daan nar a garaaw nu yóbbu la Popenguine waaye ba amoon la nu gënal ak dëkk bi ni mu mel ak mu toolu nu am waaw feebar boo xoolee lu nii tey ndeyaan li ñu ko limaloon mat na ay trois cent cas waaw si feebar bi mais tey ji feebar du feebar bu garaaw boo xamante ne dafa garaaw garaaw xam nga tey ji na suñu liggéey tey dañ daan yóbbu jën sax ñu ne jën bi waa kaw gi duñ ko lekk parce que dafa am feebar mais feebar boobu nag yéegul si jën yi boo gisee tey feebar boobu. dafa yem si kaw ndox mi rek maanaam dafa mel ni benn produit quoi benn ndox mu bon la àndaloon man mi dama daan dem géej mais aw ma ko am na ñoo xamante ne am nañu ko parce que bu ma demee géej bu ñëw damay raxasoo zel non man moom óoru ma ni ndax produit la wala déet parce que nu ngi ñëw gis rek feebar boo xamante ne mu ngi si kaw gi xamuñu feebar fu mu jógee ki doon xamuñu fu mu jógee mais fi mu toll nii feebar bi dañ na si géej gi yàlla moo ko andi woon jëlee na ko fi doonul tamit luy wàllaate wala loo xamante ni par exemple day dal xale yi wala day dal jigéen non du wàllaate te du dal sax jigéen ñi waaw presque boo xoolee ñiy dem géej rek lay dal waaw da ngay bokk ak nit tey ji yéenay bokk man su am na ñoo xam suñu kër amoon nañu ko mais dafa yéenay bokk añ yéenay bokk lépp garaawul du feebar boo xamante ne bu danger la quoi est-ce bi ngeen fi amee plus de 300 cas état yónni na fi ndawam pour mu jéem a xool naka la koy def ba saafara ko bi ñu fi amee affaire yooyu waaw tey ji dama doon nañ dem faju yi gratuite am na ñoo xamante dañ daan dem faj ju gratuite te bu dul loolu sax ñun ñi xamante ne ñun ñooy liggéey si géej gi defaat nañu si suñu doole jënd ay ticket yoo xamante ne def si xaalis boo xamante ne ñoom mool yi dañuy faj yu gratuite ñun nu état wala dañuy xaar leneen état yi li ñu war a jàpp mool si géej gi. fara ëll foofu la ñu war a jàppale tey boo gisee mbaali caas yi gisoo mbaal yi moom lañuy ñuy wax ne mbaal yi dafa am jën yu muy yaax si géej gi wala day yaax géej gi. man dama judd rek fekk fi mbaal caas waaw tey mënu ma gëm ne mbaal dañuy yaax a géej gi kon li mën a yaax a géej mooy bota yi xamante dañuy dem di max a géej gi loolu nag mooy yaax a géej gi mais du mbaali caas yi. kon mën nañu wax feebar bi jeex na fi tàkk. feebar jeex na fi takk hmm, tey jii gisoo ñii ko amoon mooy ñii amoon ba ñu wér affaire yooyu. naka nga mën a def ba dalal xelu Sénégal yi nga doon xamante ni amoon nañ jàqare ak tiis ci feebar bi. non feebar bi alal loo xamante ne ndox mu bon mu fi jaaroon dem na. Mhm. waaw gisatuñu benn feebar mool ñu ngi dem géej nice waaw mais li suñu feebar moom mooy boto yi ni ñuy def suñu géej gi loo kese mooy suñu feebar waaw te instant yi moom dama wax gars yi xam nga waa Ndeyane ay jàmbaar lañu ñoom koo si gis muy gune yu ndaw yi dañuy dóori waar tey ñun ñoo fi nekk booy yi di jàng école rek mais boo si gis am na ñoo xam ne ñu ngi jóge Kaolack jóge si àll bi tey ñëw di liggéey suñu géej gi toon noo mën a defar suñu réew suñu dëkk bi noo ko mën a defar gars yi nañu ñëw nu defar dëkk bi gaal yi laa tijjee ci laay tëjee boo ma gisee ma toog nii nga xamante ni mool piir a ni nii kooku moo di Abdou Saliou taaliba Serigne Saliou bi li fi jot yëpp li fi jota a wadd ci xibaar nee naa la jox nañ leen ko incha allahu rabbi am nañ yaakaar ni état dina ko dégg parce que kilifa yi dëkk bi wax nañ ndawi yi dëkk bi wax nañ et que jafe-jafe yi ñuy ci biir kay gi tamit wax nañ ko jafe yi nga xamante ni moom la hôpitaux yi am wax nañ ko jafe-jafe bi nga xamante ni moom la école yi am wax nañ ko kon monsieur le président de la république ndawi ndaayaan yi magi ndaayaan yi ñëpp ñu ngi lay ñaan ndimbal nga gestu leen parce que dëkk bi amuñu leen lu ñu dundee lu dul pêche kon suma gaay yi maa ngi woon noonu Abdou Saliou Sey la woon taalibe Serigne Saliou bi lu ci baax lu nekk rek ndimbali suñu borom la lu ci bon lu ñun lu nekk sama jëmm ju xeebu ju yéemu ji la Equivox TV la woon man la yéen la ñun la ñu defaat ko incha allah rabbi jërë ngeen jëf.